العالمين والصلاة والسلام على أشرف الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين إخواني أخواتي أصحاب المعالي إخوة الإسلام إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk jullit yi bokk taalibe yi ashhadu anna muhammadu rasulullah baat boobu mag day baamu bu baax di ko fàttali képp ku ko sàggane des na ma sa dox sa diggante ak moom wala te baat boobu ku mu ci sa làmmiñ suñu borom mu sa sawar a tàmbali àjjana boo xasee wax loolu fas ko ci sa xol te gëm ko wax ci la la julli door a wax julli bi xam ni lislaam lépp moo ci gën a ëpp doole moo ci a fekk li sëñ Tuubaa daana wax ni ab jullit julli day tege diineem bu julli jàllee nu toll moo ci sës muy mu ramadaan ñu di leen fàttali sama bopp di leen ndax day pomp boo xam ne moom itam dafa bari doole lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu junnatun nee na koor pakk la koor day dox diggante jaam bi ak safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu wal quraanu yashfa'aani fil abdi yawmal qiyaamati nee na bu yawmal qiyaamati dana ramu kooku la romb alxuraan la romb suñu borom dafa wax ci xadiis bu xudsi wax ni kullu amalin ibnu aadama lahu ila sawm fa innahu li wa ana ajzi wax ci xadiis rabbaani ni jaam doomu aadama jëfam yëpp moo ko moom mu ni ba mu des koor mu ni fa innahu koor moom man yàlla maa moom wax na aji bi nii te maa ku ne xam ni yàlla rek la wooral yàlla tax ñuy tawaaf ak yàlla tax ñuy génne asaka waaye tànn na koor moom rek boppam ndax jaam yàlla du woor man nga def

bu yombal xiyaamatee boo def loo def ci lu baax boo demee daje ñi nga tooñoon di jéggaluñ la ndax jéggale fii la yem waaye koo jéggaleen jëgul ba dem yombal xiyaam kenn du ko jéggal kenn bu boobaa boo dee faye say tuyaaba ay àq ba dara gisul woon suñ borom moom dana jàpp na yërmandeem tuyaat di wax ne fii kat man moom maa taxoon nga di ko def du la ko fayale jënn àq daal lay wax jiit sa bor bob ponk bi nak li tax mu am doole moy dafa jog dal ci bakkan te bakkan bok ci bok ci non yi te non bu taxoo ak borom non bu borom sopp motax matna mat lool nabi sallallahu alaihi wasallam neena nee ko xamni ci wer ko teruna nga tok ci benn bis te tegoo ko ci lu may sa bakkan wala sakkan wala tayel nee na li sa dund gep boko don doon don ko mën fay man aftara yawman min ramadan bi xayri usrin falam yaqdi siyam dahrihi insaaman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam muy yoon wo xam wi muy jëf muy jaam go xam ni weer woo xam ni yàllaa ko katam do xel bi ci ci ful ay jëfam ci dolli ay tiyabam motax ëpp na sagal matna farlu te luñ jamee lu ne cat la moo gën a ñëw lu weer yu gën a sori nit ñi gën a yokkat gën a miin koor yi gën a wàññi li bu topp ji te fekk boobu dafa doole noo ngi ci xaaj bu mujj mu mat a farlu lool ci guddi yi ak bëccëg yi ndax weeru koor képp la jaam mën a am boo defee lu baax am lu baax boo deful lu baax sax te defoo lu bon ñu la lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nawmu saa'imi ibaadatun nelaw yu woor ak jaamu yàlla la wasan was wa sumtuhu tasbihun nee na ku woor ak cellam ak noppee mooy subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallaahu akbar suñ baa nee na kàddu loolu day waaye sa loolu lamin waaye diis sa bu ko defee sa boo liggéey mu ne wasan tuuru maxfuurun ku woor dañ koy jéggal ay bakkaar wax dëgg baax jëfandiku ci biir ñaar bi gën a ñaar bi gën a yëg ci dayoo ñaar bi gën a mooy koo xam ne dund nga sa ñaari waajur mbaa ci ñoom ñaar mu fekke sax man jot sa jot sa doole nga dund ak moom ba xëy. faatoon sa kanam te jëndoon ci moom sa àjjana nee na kooku sàkkan la ëmb ak koo xam ci weeru koor jaru na fekk ko muy dund fekk ko muy man muy waaxu jëm a gëdi sàkkan ba weeru koor bàyyi ko benn bakkaar wala weeru koor dem te fekk goree dund ko sawara nee na kooku sàkkan na loolu yàlla du ñu xam bokk taalibe yi waxtaan bi na gàtt lool ndax wax bi moo gàtt te ci barab bari ngeen bàyyi ko ñëw fii di yàlla ak dem sëñ Tuubaa ak bis woote bii muy woote bi sëñ Aliou si la woote ngeen bokk ak moom réew mi bokk ak moom ay yitte wuyu si ko wuyu si wii léegi ci solidarité rek lañu waxtaan bi wàllu dimbalee suñu borom dimbalee rafetul rek yam ci dimbalee daganul rek yam ci dimbalee waajib la dafa war nas su la ci alquran man bil kitab wa sunnati wal ijmaa yàlla suñu borom dafa wax ni wa ta'awunu 'ala al birri wa taqwa ta'awunu 'ala al ismi wal udwaan nee na yéen jullit yi dee leen dimbalante ci topp yàlla ak lu baax te ba a dimbalante ci bakkar ak lu war ak nono suñu borom kep ko xamni ci da nga

kuy joxe rek ko mën a wax saa yu ne jëriñ ni am yàlla jox la lu sa loxo gaaw gaaw su borom dana dana dox sa diggante ak loxo bu koy nangu nga ko si loxo yàlla kon loolu mat naa xam te dimbalee dana dolli ak dofeel ndax doomu aadama yi boo leen tane di leen dimbali danañ te danañ la lekk waaye nit boo ko tanee doo ko dimbali yaa ko ci yoonu bañal bu gëstoo moom te faw mu yàq la ndax nit ñi di ko tane rek mooy ko mu gën lan sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha la mu'inun bil abdi maa kaana al abdu fi awli abdihi nee na yàlla suñu borom du day mukk di dimbali ab jaam li feet jaam boobu mi ngi dimbali ay moromi jaamam mu dellu wax moom rek ci sallallahu alayhi wa sallam nii unsur man fil ardi yansuruka min fis samaa'i nee na yow sama jaam bi li la làmb ci gëneel moo xam wërsëg la moo xam kàttan la moo xam xam-xam la moo xam lenn loo mën a dundee nga ko ci nga ci dimbalee ko yàlla tax nee na bàyyee ma sama yow maa ngi dimbalee sama bopp ginnaaw nag nga maa dimbali sama jaam yi ndax kenn ku nekk yàlla la gërëm nga xamul waaye yàlla boo xoolee loolu maam defoo ko tey kon lépp lu la nar yàlla nar a jëfal ab jaam ci borom jaamam képp la koy jaar la koy jaarale kon ki yàlla ci kaw suuf rek mooy ko dimbali jaamam ñi dimbalee buntu bu rëy buntu mën a dolli yiw suñu borom nee na masalu lazina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi كما سنة حبة الآن قد تصق السنة دي من كل سنبول الدنيا محبة والله لا يسمع للشاء والله واسع عليه فيا كان بين ميلني بين ميلني سوسيلني يوم راه وخيرون دمني بوقت تاكي مارني لواو الحمد لله لواو الحمد لله مارني لواو الحمد لله waa asxaabul Mustafa ahbaabul Mustafa tuddee li waa Muhammad mooy mbaar bi nga ni drapeau bi nga xam ne yow ci amee mooy parasol bi ñu Muhammad sallallahu alayhi ak xeetam ni ñu tuddee ko mbaar ni képp ku mu tiim yàlla na li waa Muhammad ci boo léegi ci barke seen Mustafa mbaar mi penc mu nekk mi pencu Daaru Xudoos mi li ko tàmbalee fii ma toog ba ca kër da ko tàmbalee fii ma toog bu sama ginnaaw ba ca kër sëñ Chouaïbou Mbacké bii ba ci biir armée yi képp koo fi teg sa tànk waa dañu borom Tuubaa teg na ko teg jii sama ndijoor ci la sëñ Tuubaa jëkk gisa yoon jaara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak ahlu badrin mel ni ab badrin ak la mu ëmb ci biir lépp sëñ Tuubaa nee na yaxasatan laa mën a mën nee na géntuma defuma dara sëñ Tuubaa nee na jàkka jii xam ci baa ñëw kii la ma ko yoon ci àll ma takkale kii la ma ñëw ci wax ne man doon nga ma ñu daal si seen waay kaamil la sama wax wax ma nekk ma ci bii Cheikh Moustapha moomu di taawu yoon bi jëkkee wu sëñ Tuubaa kuy wax kuy dimbalee doo ko romb ndax moom ñeent ci àkkati ak am bàyyi Cheikh Amadou Khadim moom rek kam ji Alhaji Fallou Khadim maa ci bokk lépp ñeent fukki at yoo xam ne yii ku sëñ Tuubaa ma sa gërëm moo xam rakk la moo xam seex la moo xam taalibe la moo xam ndox la lépp lu nit ma sa def ba sëñ Tuubaa gërëm la seex mu salaa def na ko mbaa mu def ko ko sëñ Tuubaa jiw ba sëñ Tuubaa doon na lokk ba ko natt ko mu gis kenn xees dell mu peese ko ñëpp mu lëng ñëpp mu peese ko ñëpp mu lëng ñëpp lëng leen ci xam-xam lëngi leen ci mbor lëngi ci yërmande lëngi leen ci bëgg sëñ Tuubaa lëngi leen ci sunna lëngi leen ci xam-xam ba mu wuute ko doon na ko waaye day fukki at ak juróom-ñaar yi ci wutu borom Tuubaa lu mas a am ci jaam ñi la ko def jumaa ji moo ko tàmbali moo fi indi laay bii moo fi indi sëñ Tuubaa yi tax waaye bu ñu demee ba 1939 deuxième guerre mondiale déclaré li ko jumaa ji ak li ko digal sëñ Tuubaa yi di doon doon moom sëñ Modou Moustapha dafay ne ñëpp liggéey jumaa yi parce que yéen lépp lu taxee ci loxoom mu dimbalee ko jaami yàlla yi ngir yàlla ndax xam na ni kaaba tey ñuy tawaat ca Makka li muy tedd tedd julli ci gën a ñàkk solo sëñ Tuubaa ko doon kaaba jële ci te kaaba boobu teg moo ñàkk ci borom bu dul inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhii bi Bakkata mubaarakam hudan lil-'aalamiin waaye xam nañ li mu bari bari doole jullit bu gën a yàq solo ci adduna moo war bakkaala bi moo tax Cheikh Moussa bi tëgg li kii jumaa ji ba 1945 mu fekk bàyyam tooy laatul si moom def ci jumaa ji gasaatul am am pax ci ngir fa séenee dimbali bu dee ci ak yii leen ak taxaw leen ak suturaay leen te rakkam yëpp njabootu sëñ Tuubaa buntu dimbalee ñoo ci man ñëpp taawam bi jox alhaaji Cheikh Amadou Mbacké muy sëriñ Seex ku ne xam ne ni dimbalee nga jëm ci moom mus benn jant ba jant bi soo te xoolul ay rangoon yu bari teggiwul ay jaaxle bari moom sëriñ Cheikh am na benn bisu korite ci njaareem mu julli xëy ba noppi gouverneur ba fi nekkoon ci yooyu jamono ñëw ndokkeel ko wax discours bu rafet joxe yóbbante chef de l'état wax wax noonu ko baaxoo wane ba sëñ Cheikh jël kàddu yi ko sëñ Cheikh nuyoo nuyu ñu mu sant leen gërëm leen ñaari baat rek ko wax dañu ko na ngeen dimbali nit ñi dimbali leen nit ñi ndax nit ñi ñu te xamul fu mu jëm xamul dana dem seen te jaaxle rek ko tax a jóg na ngeen dimbali nit ñi ni leen man Amadou Mbacke mii day jullit waay dimbali nit ku yàlla nit ku nit dimbali man la ko defal ndax maay koo xam ni ci réew mii maa war a taxaw ñëpp maa war a dimbali man te ñëpp dañ kon ku nit man ak bépp seen assurance da ngay xool loolu sëñ Seex nee na ku waay dimbali mën nga dimbali ndax lépp loo ko defoon maa ko waroon defal jaxee sant la nga xool maamam bu baax ja soxna Ami Tëloo mi nga xam ni dëkk bii lu nekk tey Touba plan bu ne ñu ko fi daal spécial bu ne ko fi jox lu ne ñu ko fi jox ci suuf suuf ci waaye. soxna Ami Dodo moom nga xam ne moo doon teel borom Tuubaa di Muritamba dëkk bii di Tuubaa soxna Ami Dodo bi ci daal moo fi njëkk a taal jërëjëf Aliou jërëjëf Aliou ndey sa suñu tubaab yi mu ne ndax foofa rek laa bëgg dëkk foofa rek laay jubbi ba fu jógee français yi may jëm si lu fa waay def rek def te foofee sa loxo ba jubbu te xaw ma ku la ñaareel ci loolu ci tubaab bi mu yaatu yaatu je parle en parfaite connaissance de cause man lii may wax yàlla rek tax nañ ko wax kon loolu nag maa ngi koy wax ci tur waa Sam di ko wax ci tur waa ay Mouhamadi di ko wax ci tur boo dem taaj bi seen tubaab di leen xamal ni ku bëgg a sa kilifa noonu ngay da nga koy yeggale sa ci fa loxoom nga da nga koy ku mu xamul ndax xam ngeen ni nit ku ne ña ko xamul buur bu ne ña ko xamul ñoo koy fal waaye moom ñi mu xam rek la mën a kon bu falee ñi mu xam ñi mu xam nañ ko doon jox digganteelu ñi mu xamul te boo léegi ñooñu rek koy fal kon addis bu responsable bi fubal ci yëpp meloon ni yow ni ñi nga xam ne dañu jàppale seen kilifa bi yow yëpp meloon na ni yow kon mbir mi du demee nii na ndax ku nga xam ne ni nit ku nangu consensus la nit ku set nit ku am ouverture la nit ku ubbi la ci ñëpp kon nag noonu ñaan ci barke Xaadimu Rasuul yàlla na yàlla doole taxaw ci limit la noonu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci barke borom Tuubaa ku teew yàlla sëñ Tuubaa ak aajoom weer wi nii ñu ko tàmbalee ba mu yegg si biir xaaj tey yàlla ñu ko yeggal te bu am mérite ñu yeggale ko yàlla nangu ko te gërëm ko nu leen di gërëm farlu baax ci weer te da nga xam ne dimbalee am solo yonent bi nee na man aftara saa'iman kaana lahu fii xayra annahu laa yanqusu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'an nee na képp koo xam ne teg nga jullit bu woor sax nga jox ko bi sikki tamr aw bi ci waxtu man maay boo xam ndox doomu tànn damaa jëlee bi ne gaas mu ko soodee wala mu ñam baax nga jox ko jullit bu yonent bi am nga yoon bu toll ni kooram la te du wàññi ci kooram nga dara li ci dimbalee li ci def lu baax li ci social bunt la boo xam bi dara tollu ni moo gën lépp lu ni di wut yàlla ndax jaamu yàlla ci xawaa yii lañ koy def ay julleeg woor ak yooyu waaye liggéeyal yàlla moom ci jaamu yàlla yi rek lañ ko def ci néew doole rek lañ ko def noo leen di sant leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi di ñaanal sëñ Mountakha Bachir bu yàgg fi loolu te ànd ak wér naa li nga xam ne naa ko ci yoon murid yëpp waagale ko ci jàmm ak salaam di ñaanal xale général des Baye Fall yàlla yàggal fi loolu te ànd ak wér di nuyu kilifa yi teew yëpp kilifa aada yi ak kilifa diine yi yaakaar naa ne sëñ Matar Mboup sama xarit lim na délégation yëpp kenn ku ne maa ngi lay sa tur ak sa sant dina jox sa wàccuwaay tey nag yaakaar naa ne seen Moussa li ci wax ndaxte conférence yi wax diine la ñuy wax waaye ñëpp rafetlu sa xam-xam macha allah nga yeewoo fii Tuubaa mais xale yi ñaax leen ñu xam ne ñun amul dara lu dul sëñ Tuubaa bu ñu nangu kenn bi ñu demee feneen furul sëñ Tuubaa ndax lu sëñ Tuubaa am waruñ koo soxla waruñ koo jéggaani waruñ koo faat te sëñ Tuubaa am na lépp kon donc liñ ko nee wax xale ñoo ngi dox seen xel ñoo ngi leen di dugal suñ seen yoon nekkul kon moom yéen ñi xam ne yéen a war a wax bu soxla waxee ni dégg leen da ngeen ko insister ci loolu Baye Alla Sylla maa ngi nuyu di nuyu délégation monsieur le ministre Galba di nuyu responsable yi fi yëpp responsable zone ak maire ak commerçant yi ñu mën a nuyu Baye Alla man sama xarit sama xarit nag ndamañ ca gàcceeg ca waaye ku ñëw fii dana xam ne man ndam laa ndax loo am na ko doomu aadama yi xaaral ba faru di yëkkat sa alal di def ay kon boog yàlla suñu borom moom moo la suturaal ko jàppale loolu dama ci am mbégte bu baax a baax waaye ndox président Macky xam ne li koy defal moo tax lépp loo xam ne jàpp naa dama koy bàyyi fii ñëw. maanaam kenn mënu la fii ci li ci yor ci mbooloo kenn yoru ko fii ci dëkk tappale waaye tappale nga xam ne ñooy nekkal askan wi di jàppale askan wi di jël seen àll di ko jox askan wi président Macky Sall ñooñu la fas yéene jàppale parce que jigéen ñi dañu leen jàppale ci ay financement dañu mën naa ko mën a tàggu ndax dañu ko yelloo dañu ko gëjoo sa bis bi képp ku naan responsable politique la wala muy jàppale président Macky Sall xamal ne am nax saanal wala dëgguwul ci moom wala mbiri boppam lay topp ko waaye bu mag sooy ñor wala dëgg ñu ñor sa tànk ñu def wala ñëw toog am na cee boppam jeex tàkk loolu wax koy wax te dana ma ci dara nañ yokk seen doole tàkk leen ñaan ñu sensé ni nga xam ne noonu la ñuy xoolee le président Macky Sall ndax nit koo xam ne ci li ñu ko xamee mooy yar ak teggin respecté kilifa diine kooku bu fekkee ne dafa jiite réew mi te Touba bokk na ci dëkk yi nga xam ne ci la ëpp li mu réalisé loolu buñ taxawee dinañ ko wax ba pare ñaax waa Touba ne ñi ngi leen di ñaan te yàlla suñu borom tax ngeen jàpp ko ngeen gestu ko te bàyyi ànd nii ngeen àndal tey bu fekkee ne ànd ngeen ak moom doole ju mu am ci wàllu politique jàpp naa ne ci président Macky Sall lay jóge te yàlla xam na ne gëm naa ne yéene mooy saa bu ñu demee ci mbañ gàcce ki mu am fi nag kon loolu koy dénk leen di ko dénk tey jeunesse bu Touba comme occasion dañu bëgg a ñetti kàddu ci côté ndaw yi parce que dañoo gëm ne réew mi ni ñu bokk la te lu ñu a bokk tabax te pour ñu tabax ko aussi ndaw ñi dañ ci am responsabilité man ne bu ma ndaw te gëm sama réew doon patriote képp koo xam ne yaa may woo boo ma woowee ci lu jëm ci yàq sama réew ma bay képp xam ne danga may woo li ma lay ñaan mooy nga woo ma ci luy tabax réew mi réew mi nag dafa am kon lu mu bindoo mu am ay kilifa diine yoo xam ne démb ak bërki dañ ci nekk ñu daan leen wekk daan leen jox cër ñu gis léegi kat ka ne am na ñoo xam ne saa ñu waxee la wax mooy jéggi baat kilifa diine yi dépassé leen wax leen loo xam ne méngoowul ak suñu ay réalité wala suñu diggante ak kilifa diine yi kon ñuy ñaan ndaw ñi ñu respecté kilifa diine yi leen cër di ñaanalaat bàyyi àlla lii mu def tey yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ba déwén mu defaat ko te bu koy defaat mu gën ko saxal ci kàddoom yàlla di gërëm xalaat si la ñoom ak jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jigéen jigéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf waaw dinaa ko waxoon nañ ma ko Ah. ah di sant Madiyana di fa defar te yàqu fi dara ndax dama naan ko lépp lu am ci parti bi rek du sens mëneeg la jàppale nga jigéen ñi jàpp nga sa njàmbur am nga taalibe gëm nga sëñ Tuubaa te yàqul la dara sa digg def sëñ Tuubaa man ni bokk yow nekk ci de dañ ñoo jox bu mag a mag fonk di wax ak di diisoo ñun te nag sama kilifa ga ci ko ne maa sama nijaay di la sant bu baax si la di ne li ma jëkku ma ci ndax ni ngeen na ko def ci jigéen ak ndaw yi ci sa alal ak sa doole ak sa xel lii jëkku ma kon nag dañ lay ñaanal baax yàlla bu Tuuba sàmm la musal la aar la man beneen sant boo xam ne dama la ciy sant baax na ñu bokkaat ko suñ Basiiru nga yaakaar suñ ko Basiiru fonk leen lool gëm leen féetewoo ak la la wàcc kasi bëgg lépp nga koy def la wacc kasi Cheikh Seye nga def ñun nga kasi Cheikh Seye ñun ñëpp la te kasi Cheikh Seye amu fam doo fa na bu du politique tamit yaang ñu na bokku lépp kon nak dañ lay gëy waxat president mu gën ñoy jappal bay Àll gën ko dolel gën ñu ko teyel na asgoor la abdul jullit ku baax la fàllam du bolé kenn wàcce dara jaam wàcce leppam ñu ñu ko fay kon nag euh, damay gën a dénkaat jigéen ñi ñu gën a jàpp bàyyi àll bu baax di gën di dénkaat tamit ndaw ci dëkk bi nan sàmm suñu taalibe te bañ koo fooyee ndax suñ tubaab mooy njëkk mooy mujj mënu kenn dugal ci loo xam ne ni day yàq ba jëlmal dor yoonu murit ndax yoonu murit kenn mënu ko jëlmal kenn mënu ko yàq ndax ba suñ tuubaa fàkkee Seex Mustafaa ñëw xàll ko te mu nga xam booba yaa ngay atam ci ci ci saayu bayu 40 ans mu téye yoonu murit agsi fii mu ba mu ànd ko ay rakkam ak ay doom Cheikh Mountakha xalifa général bi fi nekk yàlla ko suñ Tuubaa bàyyi yàgg ci wér kon na leen sàmm suñ taal bi te a rafetal dëkk bi jéem ko bàyyi yàq yoonu mu rek nañ ko bàyyi xel bu baax sàmm suñ taal bi sàmm yoon bi jëf ñu ngi sant baax

amee nga ànd ak moom mu am lu sax li man mooy bàyyi ñëpp bàyyi ñëpp ba pare moom ñu ko ñaanal ñu ko ñaanal ñu ko ñaanal sëriñ Moustapha Bachir di yàgg lool te ànd ak wér di nuyu képp koo xam ne ci tey jii ci bis bu sell bi bisu yërmande bi bisu ñaanantale bi ñëw nga fii ci bisu àll si la bi di ñëw di wax nag ci turu ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Maire de Mbaké, M. Galoba, tey jii moo mon fi yabal comme ni ko waxee léegi ma ànd délégation bu mag bi nga xam tudd na ko fii léegi buñ ci déggee tudd ci ki nga xam ne kii mooy chef de protocole muy Mor Mbacké chef de cabinet Mamoun Ndiaye nga leen may li nga xam ne nii moo jëm ci organisation santé yi ànd ak Mariam Sall mi nga xam ne nii ak CCTL tey jii ak Abdoulaye Diop muy ñoo xam ne nii ministre bi daf ñu tànn tey jii mu bëggoon fi teew lool ndax dafa am benn délégation bu jógee Arabie Saoudite ñu doon joxe ay neexal ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo néew doole ak daara yi yàlla ne mu dellu Dakar mu ne bisu àll si la moom na ngeen ma demal teewal ma fa saafante ak moom remercier ma loolu moo tax tey jii ñu ñëw fii di ko félicité ci li nga xam ne lii fekk na fii ci organisation organisation ma rafet na vraiment macha allah góor jigéen mag ak ndaw ñëpp teew rek wax ni àll moom ni moom defe naa ni réew mi dana dox li nga xam ne ni président de la république bëgg na ko ci nag waxante dëgg ni ñooy liggéey seet bi nga xam ni di wax ak askan bi ñu jox leen ay doy jàppale leen defe naa loolu mooy wax bi ministre bi nee na lim dëkk ci àll ak ni ko gisee ak ni nga xam ne ñoo topp ci gannaawam kontaan nañ moo tax mu ne mënuñoo ñàkk a dégg ñëw si saafonte ak moom félicité ko ni ko xam daal mu koy def mi ngi ci yoon bu baax na topp yoon woowu jàppale président de la république jàppale Sénégal jàppale waa Touba yi maa ngi leen sant leen gërëm xam ne kii ñëwal na fi di leen remercier asalaamaaleykum lool lool lool waaye dafa dafa dafa ni ma Ibrahima wax dëgg yàlla man fépp foo xamante ni si sama baay dafa teew man mënuma faa teew ndax man damaa nekk ci sama biir baay nee na damaa nekk ci sama biir poosu baay fépp fu sama baay nekk fa laa nekk fépp fu nekkul nekkuma fa lépp lu sama baay bëgg suba ba ngoon loola maa ci moom ak sama tànta aji jaxate bu ñu yëkkatee cër bu toll ni cëralaat nako ci biir dama jël cër boobee tek ko ci loxol Abdou sille sama mag mu tek ko ci loxol bar sille magam mu tek ko ci loxol Abdoulaat sille mu tek ko ci loxol khadim sille tek ko ci loxol doomi bayam yépp ak bay Salak kulim juum ak njabootu bay allah ak njabootu bay Mayib ak njabootu ci la gépp ci la draman gépp daal la ko defal ji li nee na mi ngi leen di sant di sant tantam tantam ji aji jaxate di ko jaarale ci mère Fall nee na nee na yaayam sax jërul mu koy tudd waaye nee na daal sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax nee na mi ngi sant baayam di ko ñaanal suñ borom guddal faram wéral ko nee na mi ngi ñaanal baayam Baye Alla Sylla nee na ñàkk teewaayam ñàkk a ñëwam président daa bëgg a rek mbooloo mi ni leen fépp boo xamante ne si baayam teew na fa ne nee na moom wutu fa dara wutu fa dara waaw soxna aji nag ñu ngi may ak cant ci jiili nee na amul ñu payu jiili ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ñaanal njabootu ba si la jëpp waaw délégation bi nag ñu ngi àndal Modou Baax mii ak ak mbooloo mele ku lim juum ba yàlla jiili nee na sant na la gërëm na la jërëjëf jërëjëf jërëjëf arrêtement ñu asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi sante yàlla jullit si yonent bi sant Serigne Touba Mbacké ñuy wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké sooy bu ñuy yaakaar ñi ngi nuyu jigéen ñi fi teew ñëpp ndax ci ñoom laay tàmbalee tey bu ñu waxee kër Baye Alla tey ñu ni soxna Awa Fall moo jiite jigéen ñi mooy wax ci turu jigéen Baye Alla li tax li mu ñu responsable yi tey yéen a aaye war a dalal gan ñi loolu moo tax kenn limul benn maire ngeen xam ni responsable bi fi toog yëpp kenn ku nekk xam nga sa bopp gan ñi lañuy ñuy lim invité yi la ñuy lim kilifa yi la ñuy lim comme ku déggu sa tur nga xam ni loolu ndigal la loo xamante ni dafa jóg ñu jëlu ci waat ba tay di nuyu ñep di nuyu Baye Alla Sylla mu jotali ñu ko ci président Macky Sall ak gouvernement ak responsable fi taw yëpp du ma fi jaaraat di jël nuyoo Mariana yëpp teg ko ci loxo suñ Abo Say teg ko ci délégation bi nga xamante mom lañ fi andal di ñëw di dellu ci waat ci tém bi nga xamante mom lañ fi jaarale moy um, taxawayu jigen si yaru xalé yi ci jawar ji nga xamante fi lañ toll du ci dellu si waat oustaz si dellu si nañu kon kenn ku nekk si ñun si jigéen ñi am nañu responsabilité boo xamante ni war nañoo yar suñu doom yi ba tey ji crise de valeur yi nga xamante ne moo am mu bañ a am ci suñu ay njaboot ñun waa Kër Baye Alla ñun waa Touba fu ñu génnee war nañoo xam ne ñii jigéen waa Touba ñoo leen jur nii ay gone waa Touba la ñu waxaat tamit beneen thème bi muy taxawaayu jigéen ci mouridisme ku ne xam ne ni sa sas bu ñu mos a joxee rek jigéen ñee ci man kon sa so bàyyi àlla bi mu wootee tey jii wane na ni tey jigéen ñee ci man ñu ñëwaat tuuti ci taxawaayu jigéen ñi bàyyi àlla yi ànd ko ak réseau faamu bàyyi àlla yëpp waaye ñu am gan gu mat gan nag tey mu ñëw fekk ci suñu fekk si bu am maanaa kooku mooy kan mooy aji jaxate di madame Silla ànd ak GIE bu mag bu ñuy wax kaay baax ñun kat dañoo mujj wëlbatiku g euh, réseau Baye àll bi yëpp ñu tuddee ko Baye baax ndax moom indi na fi lu ëpp ñeenti téeméeri nit si g e bi kenn ku nekk parents yi kenn ku nekk gis na ko kon aji jaxate jërëjëf sa taxawaay rafet na sa dugg si si kër Baye àll sa dugg si kër Baye àll am na solo loolu nag ñu si woo Baye Baye àll sa jigéen ñi ñu ngi lay tàllalati wa loxo ndax ñoom dañoo fay si bor tey ñoom ñuy toog kenn yëngatuwul kenn bougéwul kenn ku nekk lebal nga ko teraanga tey seen kees yi ñuy ja kees yi ñuy liggéeyee yaa leen ko jox financement yi yaa leen ci boole formation yi la yaa leen ci boole kon Baye Alla lu ñu am ci politique dañ la koy sante ñii na lool doyul ministre de la république yi fi nekk président Macky Sall nañu xool jigéen ñii ànd ak Baye Alla ñu jàppale leen doole leen ndax ñun kat ci développement lañ jëm maa ngi koy leeral ñëpp inscrit ni nañ bind nañ ay carte de membre te képp ku am carte de membre am nga carte d'identité te yaakaar naa bu ñuy wax politique carte d'identité mooy arme bi kon nekk na loo xamante ne am solo la carte de membre yi képp ku bokk ci réseau bi rek ñu ngi lay woo nga ñëw jënd sa carte de membre ni ca ci biir wane ni si nga bokk kon Baye Alla la wax si moom dootul doy ndax moom mooy force tranquille force tranquille mooy mobilisation bi kenn mënu ko ci département bi moom rek moo ko mën ay jigéenam rek ñoo ko mën kon na Baye Alla jërëjëf jàppale nga sa ay jigéen soutenir nga sa ay jigéen waaye gis nga ni tey fay nañ la ko ñi ngi sant jeunesse féminine bi gis nga leen seen ay hôtesse bi ñu taaroo macha allah boobu ba léegi noppalu guñu ak xajikuwuñu ñu ngi nuyu jeunesse féminine département bi kon wu ñu kenn responsable yi commencé ci kaw ba ci suuf bu ñu limee dañuy juum ñoom wax nañ responsable yi waaye kaay baax daal woo nañ fi ñëpp GIE bi ubbi na aji jaxate sant nañ la ci yére yi taar yaa taaral bis bi di sant groupement yëpp bàyyi àlla ñu ngi ubbee ko tamit ci social bi sukar koor yi nga fiy joxe ceeb yi ngay joxe sa jigéen ñaa ngi nii soxla nañ ko ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar bu baax fañ nekk kon ñu ngi lay tàllal loxo di wax président Macky Sall mu jàppaleel ñu sunu jeunes yi defal ñu leen chargé de mission yi si euh, si ministre yi sunu jeunesse yi nañ leen di jël si chargé de mission yi sunu jeunesse féminine yi nañ leen jël si chargé de mission yi sunu jigéen ñi nañ leen jox ay ay poste de responsabilité bàyyi àll garaat bi nga nekk dañ la ko dépassé dooli la dooli waat la ndax yow ku la dooli rek may na doole département bi kon ñi ngi jaajëfal ñëpp kàddu yi gudd na mais ñi ngi jaajëfal jëfal jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna Awa Fall ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk di am mbégte bu baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi di jégalu bu baax a baax coono yi bëri na weeru koor ngeen topp yëpp ñu ngi koy jégalu bu baax ak ñi nga xam ne ñëpp tudduñu seen tur wala ñi nga xam ne ñoo naan ñoom ñëpp ñu koy jégalu kaddu yi rek mooy sant nañ bu baax sant boole yi nga xam ne ñooy déplacé wu ñu benn bàyyi lañ wàññi képp ku ñëw xam nga ne liñ bëggoon xajul ci xajul ci baax moo wax sax xaj yi bu muy teew rek mën ngaa tere loolu loolu nag li ko waral ak liggéey bu yàgg boo xam ne commencé wu tey mooy diggante baaraan ak population bu baax ak responsable yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Touba nekk département de Mbacké ci engagement yi ñu ko jàppale waaye li nga xam ne tamit ñooy déye xam ne ñooy déye kaay baax te soxna aj jaxate jiite ko ak taxawaay bu am solo bi nga xam am ak ndaw ñi ànd ñëpp bugguma benn seen tur responsable li nga xam ne ñooy ànd ak bayal di ay góor ay jigéen wax nañ leen bu ndax yéen xam ngeen seen bopp xam ngeen seen ak xam ngeen nombre bi ñu mu buñ bëggoon na taxaw fii di ko lim xaju fi waaye yéen yéen woote ndaje mi conférence bi jigéen ñi ñoo ko woote du bàyyi la moo ko woote danañ cee jàppale nag ci côté yëpp mais jigéen ñi ñoo doon def di ko sargalaale waaye mu am lu feeñ muy qualité nit ñi nga xam ne ñoo wuyu tey amul benn responsable ci Touba wala ci département de Mbacké bu ma wootee gis ci personnalité yi nga xam ne ñoo nekk fii tey xadaa yi waxtu yi ñu man kenn ku nekk ñu man koo tudd kenn ku ñu man koo présenté waaye képp ku xool gis bépp kër Serigne Touba njabootu Serigne Touba kër boo ci dugg am na ñu fa bàyyi koy ñëw wuy si njabootu maam Cheikh Aliou Fall Cheikh Serigne ñëpp ñëpp kër boo ci dugg rek am na ñu fa déplacé wu ñëw teew fekk ñëpp dëkk lañ dëkk mën nañ mais man fi may daaneele mooy man li tax président Macky Sall gagné Touba jafe ko am naa ci firnde tey tey ku mel ne Baye Alla ndaje mi woote fii tey ñëpp xam nañ ne ñëpp journaliste yi ñu nekk ñëpp xam nañ ne ndaje politique bi mel ni amul ci Touba mais ñu bari ñoo xam ne nee nañ président la ñuy jàppale jaaruñu dawuñu seen tànk ministre bi baree bare biñ leen réagir loolu nag loolu nag xajul fii mais maa leen jox sama kàddu ñun ñu ànd ak Bayal dinañ taxaw dénoncé ko ba président xam ne ñu ko fi liggéeyal mën na leen wàññi ci ay jotu baaraam ñu ngi remercier ñu ngi sant bu baax a baax le ministre Gallo Ba ci taxawaay am na solo waaye ñu ngi koy sant ñu ngi sant honorable Matar Diop ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax diggante ak Bayal xam nañ ko li ñu taxawee xam nañ ko foofu laa yem foofu laa yem. loolu nag bàyyi la waxu ko keneen waxu ko man Moustapha Sylla maa ko wax te samay responsabilité yu mat sëkk laa jël te fu leer laa ko tag te dinaa ko ba mu jàpp loolu président nit mënul dajale lu toll nii ak ay président yu mel nii président jox la ndomba tànk nga dem di doxi leneen bàyyi lii am na nag ñeneen ñu yónnee am na ñu fi yónnee ay délégation yoo xam ne dañoo am ngaan waaye nag xajul jotaay bi dinañ toog képp koo xam ne demoon na yóbbu la lettre bu nga jot ci te réagiroo danañ ko wax ba ñëpp xam ne président xam ne ñu koy jàppale ak ñu koy jàppale ci dëkk bi bokkul en tout cas président ñu ngi koy dégg le député général Bolo wax ñu ngi koy dégg honorable Matar Diop ñu ngi koy déggaat Baye Alla Sylla bu toog wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit yi fi teew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 soo ñu génnul tamit nag danañ fexe ba ki la nekk loo ci teel bi dana ko yëg maa ngi sant ñëpp nag wax ci ma ko waaye kenn ci ne daal am dente xam nga ko du ma ko bàyyi bul ko bàyyi soo ma woo ma yëpp li bi siit bis bi ñun dinañ ko def ba mu mat sëkk maa ngi sant nag ñi ci teew bi waaw presse bi moom bu ma noppee damay jàkkaarloo moom li ma bëgg a wax xëy na ñoo ma ko mën a laaj ma wax ko ndax xëy na bu fekkee ne doo orateur ñoom ñoo la mën a dimbali liñ soxlaa laaj ñu di la ko laaj nga ji toom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 ndax fas naa yéene machine ci may wax kenn dama ko fi jëkk indi danaa ko indi te di ngeen ci mën a liggéey di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf waaw yàlla yàlla wax wax alhamdulilah li ko sabab mooy sant yàlla rek am réew it boo ca nekkee ba yàgg yëngu-yëngu yu bari tépp tépp ci bari war nga dellu ca ca suñ maam yi ya daan def surtout ñun suñuy maam jàngati alquran bu gàtt gàtt jàng nañ fi lu mat ñeent am na ku jàng 28 yónnee ak liñ fi jàng dañuy jàng kaamil yi ñaanal réew mi ñaanal suñu mag ñi ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fa ñaanal suñu leader mu am jàmm man mobilisation ñàkk ko woote la wax waaye saa moo ko wootee rek dinaa ko am ni ko bëggee ni ma ko bëggee ndax du ma wax lu nga xam ne ci man nit du ma jëm si ci man ma bañ koo wuyu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 li ma bëgg daal képp ko nga xam ne yaa ngi bëggal président fii ndam nga xam ne man bëgg naa liggéeyal président te maa ngi ciy def sama loxo amul guddi na amul naaj loolu wax naa ko bi may wax ci samay wax xaaruñu ci président xaaruñu ci ministère am nay formation yi nga xam ne ñoom jigéen ñi am na ci yu bari yooyu xam nañ ko fas na ñëw yéen dem ba xam fa muy jaay xam nañ ko gis nañ lee bi xam nañ machines yi gis nañ liñ man gis nañu mën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 am na ñu bari sax doon ne ma ko wooteel wooteel mais comme ni ngeen def nii kontaan naa képp ku nga xam ne dégg nga ko te sama baay la rek da ngaa ñëw kon nag yéen ñëw teew sant naa leen gërëm naa leen sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen merci